bu nga xam ne danu koy encadré ngir sàkku ñu bàyyi ñu ñu woowee ay détenus politique ba noppi ñu mën a organiser ay élections yu tëddee ñaaxaanaay fii ci euh, réew mi euh, ndax dañuy lan lañu ñu mën a jàppandi lan la ñu mën a xaarandi ci waa F24 jëm ci décision boobee nga xam ne préfet jël nañu ko du ñàkk nag. daañ ci xam dara ci kanam tuuti ndax daañu woote ñoom waa F24 janoo taskatu xibaar yi sa màkkaanu ko gëm sa bopp sa cité kër góor gi jamono joojee nag ñoom dañ ni doo bëggoon doxub ñaxtu ngir sàkk ñu bàyyi ñu ñuy woowee ay détenu politique am na ñu nga xam ne ñu ngi si def jéego waaye SOS eh, P fu nekk ne médiation la ñu def ba am na lu téeméer yi nga xam ne jot nañu ne bàyyi médiation googee moom la rappeurs yi jël eh, ba ñoom it bëgg ñu bàyyi yenn seeni naataango Karim Xurum Xaax eh, sa la bokk ñu ànd seek taxaw seetlu bu Fatou lay mbay jot mu doon ay stratégie yu bees budul rek wàcc ci tali bi ngir nag demandé ngir ñu bàyyi yenn détenu politique yi médiation bi mel ni loo xam ne rek doon na ab option boo xam ne ngi indi ay résultats lu mat téeméeri détenu yoo xam ne nag jot nañ leen bàyyi ci médiation bi nga xam ne SOSP daal dina koy tàmbale te it jamono ji rappeurs yi jël bile yoon niki ki ñu dem dajeex ministre bu yor wàllu yoon ngir amal ab médiation ba tax na DJ Awadi Dugeti Xuman Matador Longdi, Rexti, Simon Kouka, Fou Malade, Gaston Ngak Blende Nyom dem rek ministre de la justice ngir ñu mën rek ngir ñu libéré Karim Xrum Nidof, nit dof détenu politique yi mu doon nag ab médiation sax indi ay résultats itamit ni résultat bi nga SOSP Daldi dina am mu mel ni ne rek bi les na rek ngir am climat social bu dal mu ngoog mu di démarche bu nga xam ne daanaka euh, moo tàmbalee def ay résultat euh, société civile bi jël ko tey rappeurs yi jël ko mu di médiation Mamadou Fofana. waaw maa ngi dégg démb maa ngi lay laaj sax élément bi Fou Malade. Euh, di ci revenir at ci facilité falis ni mu si Cissé nam leen facilité li nga xam te ne nii surtout moom mooy audience bi am seen digganteeg ministre bi man dama jàpp ne rappeurs yi sax xaj na ne. ñoom il faut ñu comprendre d'abord que ay sénégalais nañ xam nga mun nañu laaj sax ñu bokk ci ñoom ñu libéré leen mais ña fa nekk ñëpp aussi ay sénégalais nañ man su ma sañoon xaj na ne du ñu yem ci ne ñaan ñoo ñu bokk ci ñoom ay doomi Sénégal ñoo fa nekk bu dul xarit di mbokk di am di jàmm wala koo xam te ne kii kat doomu réew mi la ma nga ca jafe-jafe bu ñu toogee di laaj nañu laajandoo comme ni ko waa SOSP di defee ñoom mun njaay Cissé bu ko defee dina tax initiative yëpp bu bien sûr F24 également peut-être ci la leen ni wax ñu mën xam nga sauter sur l'occasion ñomit it xol out liste bo xam tane ni kat mën nañ ko présenter pour ñi nga xam peut-être du bokk ak ñu waa SOSP euh, dugal bu ko defee ensemble ñoom ñëpp ñu xool comment faire justement pour ñu mën libérer ñoo ñi nga xam te ne ñi nga entre les liens de la détention parce que ay initiative la yoo xam ne quoi qu'on dise aussi lu am solo la mm-hmm. boo demee ci njaboot ñi nga xam te ne nii ñoom la seen doom tey caabi féete gannaaw mais sonn nañ lottu nañ ci war a paas chaque jour jóge fii moo xam muy géejawaay moo xam muy Pikine moo xam muy Rufisque moo xam fu mu mënti doon nga bëgg a paas bés bu ne bëgg yóbbu añ ci kii nga xam te ne kii ma nga fa euh, kaso ba ci li nga xam ne li liñ ko jàppee kat moo di ne dafa génnoon di manifester wala dafa génnoon di sànni xeer wala kat dañ ko fekk ci manifestation yi amaana na sax bokk ci waaye fekk ko ci mu doon doxi soxlaam tamit ñu téye ko donc loolu day nekk loo xam ne ay initiative yu am solo la ba tax na ne bu ma sañoon euh, ni ko nit euh, Fou Malade waxee mun njaay jàppale na leen mais également waa F24 nañ jéem a réajusté wu xool comment faire pour àndandoo ñoom ñëpp muy ñoom di ñoom fu malade bu ko defee ñu boole seen doole defal seen i di ko présenter et ñu ñuy gën a dem petit à petit ñuy bàyyandoo ku ci nekk ñuy xool lim bu ñuy bàyyi nànk-nànk ba nuñ demee ba nga xam te ni bàyyi nañ ñëpp bu ko defee ñu xam ne ne atteindre nañ seen objectif et je crois loolu moo ci gën a am solo. alors muy muy politique di opposition bi surtout muy ah. société civile également yàgg nañu wax ne Sénégal amul justice te dee ñaaxaanaay amu fi tey ñooy sàkku euh, ci nguurug Sénégal mu dugal loxoom. Euh, ci justice ngir mën libérer libéré est-ce que ëlëk tamit duñu waxaat ne euh, nguurug Sénégal mi ngi duggal loxoom ci fo xamné yoonam nekku ci. oui c'est c'est ça ah, le risque évidemment parce que souligné nga ko légui ñi ñuy dégg souvent ñëpp ñom buñu taxawé yeen yenn saa yi dañuy justice bu fekkente né amna décision yo xamné ne arrangé wu leen wala bok mu nekk dossier yo xamné ñom ñoom dañoo jàpp ne dañ leen euh, bëgg forcer wala bok dañ leen jaay doolé mais tay ji la démarche est claire apparemment les gens changent de fusil d'épaule manam nañ dem waxtaan ci njëkk apparemment Macky Sall inspiré na également ñu bëri waxtaan ci njëkk mëna trouver solution. parce que mhm. luñ fi mënul waxtane nak Mambay amul. luñ fi mënul waxtane amul. et Fofana je pense que wax na jarul ma ciy ci wat ñi nga xam ne lañuy demander seen libération mais ñu ngi ci kasso bi ak seen ay yeneen morom pourquoi pas ne pas faire une démarche unitaire c'est vrai que. Euh, amener une collaboration ou ndimbalu waa SOSP mais je pense que waron nañu globaliser yëpp parce que le li fi nekk mooy euh, justice bi nga xam ne moo fi nekk dinañ ko diingat dinañ ko dinañ ko mais justice bobo malheureusement ou heureusement moo fi ne ba donc li fi ne ak as néew ci li meuna nek justice nañ ci soukandiku parce que rew tamit bu amul justice meuno dem justice dafa bok ci pilier yo xamné mo moo téye république li fi nek nak moy système système bobé ak régime politique bi Andal. parce que l'IEP, lecture bo ce sera juste un contexte politique alors que la justice c'est une juridiction c'est un système avec des hommes quoi qu'on dise il y a des hommes intègres yo xamné ñu ngi def donc mettre tout le monde dans le même sac mm-hmm. décision yi souvent c'est des décisions peut-être politiques parce que c'est des dossiers justement à connotation politique wala dossiers qui à mettre mi ngi contexte politique Lolo waral ñu bëri di de justice par rapport à li ñuy décision yi ñuy rendre ñi ñuy cibler etc. etc. mais tey jii bu fekkente ne ñëpp d'accord nañ ne nañ je pense que nous avons également de war de jur njëriñ régime bi nga xam tamit le ministère de la justice nous nga xam ne la rapport yi ñoom tamit nañu nañu yëwén ñu xam ne fii li fi nekk comme ñee def nañu effort ñëw fekk si leen nit jàppale leen ñu jàpp leen ci combat bi ñoom tamit nañu def effort vraiment mën a ubbi yenn bunt yi ba yëf yi mën a gën a dal ba kaso yi gën a mën a feex parce que am na ñu bëree bëri ñoo xam ne ñu ngi ci biir kaso bi amaana seen dossier demeewul noonu mooy ñu ñuy tuddee les délits euh, mineurs yi nga xam ne moom la SOSP bëgg a génnee ci kaso bi ak ñeneen ñoo xam ne peut-être du ay mbir yu rëy rëy lañ leen di toppee ñi ci res wax dëgg yàlla war nañ leen mën a ubbil buntu kaso yi donc ku ci nekku ne def effort sa côté ba nga xam ne yëf yi dina gën a yéwén dama mës a dégg benn. Euh, acteur de la justice bu mag ci ay jamono yàggul sax année yi passé mën naa ko bañ a tudd moom dafa ne woon ñun fi ñu toll nii mënuñu mënuñu lu muy wéeru ci sunu justice donte wóoluwuñ ko mais moo fi nekk justice boobu malheureusement moo fi nekk yow boo amoon problème tey jii da ngay dem ci yoon di nga yàgg ngat yoon mais quand même di nga am foo ko yaakaare ne xëy na mën na laa àtteeg sa nit wala régler sa problème donc tant que looloo mi ngi fi nag nañu mën a di continuer effort de waxtaan yi nga xam ne engagé nañ ko ba xëy na yëf yi gën a ñoŋ ñëpp mën cee gis euh, ku ci nekk mën cee gis boppam. ñu waxtaan waxtaanee l'intersyndicale bi ëmb ñi di liggéey ci bokki moomeel yi gannaaw euh, ñetti ay bés yu nga xam ne soobu nañu ko ci ak yëngu-yëngal banque seen yokku jot nañu sekk waxtaan ak seen ab jëwriñ waaye waxtaan woowee saafara mu jëw see ruusandee moo sabab ñu ne dañuy delloo buum sa mbooy mbooy ga la nu bëgg nag moo di ilimaan ni jëw